Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, vous suivez le programme de Salam Vision. Voici quelques flashs d'informations à la présentation chez Roussakou. Euh, C'est maintenant officiel, le leader du passé Ousmane Sonko a été libéré tôt ce matin par euh, le juge d'instruction euh, Sambassal. Il est sous surveillance judiciaire. Euh, c'était ce matin l'apothéose. Euh, partout dans la Grèce, les militants du PASSEF ont accompagné Ousmane Sonko euh, jusqu'à son domicile partout. Euh, certains partis politiques, les jeunes étaient sur le qui pour euh, accompagner Ousmane Sonko jusqu'à son domicile à la cité Gorgui. cette information avait défrayé la chronique partout. C'était l'émotion dans les actes de Dakar. Mais heureusement, heureusement, les forces et veillent au Euh, pallier à toute éventualité. Restons toujours dans cette information, un jeune adolescent de 16 ans a été tué ce matin, c'était au Parcelles Asseni. Euh, les populations des Parcelles Asseni euh, continuent de manifester et de crier le ras-le-bol euh, concernant cette particulière de cet enfant qui a été sauvagement abattu euh, ce matin. Euh, pour rappel, plus de 6 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre Euh, concernant euh, cette manifestation qui a dégénéré depuis mardi euh, ici au Sénégal concernant cette situation politique. célébration ce mercredi, la journée inter... excusez-moi, c'est le lit, la journée internationale des droits des femmes, mais Corona oblige, plusieurs manifestations ont été interdites. Euh, le thème de cette année porte sur la paix et le Covid, les femmes Euh, ont organisé, vont organiser euh, des manifestations timides, mais pas d'autres manifestations dans la rue euh, pour, pour crier le ras-le-bol. il faut dire que ces femmes occupent une importance particulière dans la vie active. Cette fête a été célébrée un peu partout à travers le monde. Le mouvement pour la démocratie Le mouvement pour les droits, la démocratie, un mouvement qui a été porté sur les fonds baptismaux, euh, organise ce mardi, mercredi, jeudi, euh, sur l'ensemble du territoire national des marches pacifiques euh, pour dire non à l'injustice et à la violation des droits de l'homme au Sénégal. Cette manifestation euh, débutera cette marche à la place de l'obélisque et jusqu'à devant les grilles de la RTS. Hors de chez nous, c'est maintenant terminé, les élections législatives se sont déroulées dans le calme et la stabilité en Côte d'Ivoire. C'est le parti majoritaire qui a remporté ces élections. En Guinée équatoriale, quinze personnes ont trouvé la mort hier dans une caserne euh, de militaires et c'est des armes qui ont explosé. La situation se dégrade, une enquête a été ouverte. Enfin, au Niger, le journaliste, le correspondant de RFI euh, au Niger, dont sa maison a été saccagée, une enquête a été ouverte pour mettre la main aux assaillants. Dans une poignée de secondes, c'est tout de suite la version Wolof. leen di gërëm sant xam Sonko di jiite parti bi di Pastef euh, bàyyi nañ ko mu ñibbi këram moom dañ ko tegoon loxo ginnaaw amoon na coow la xale bi nga wax mooy euh, Adji Sarr Ousmane Sonko ñu euh, woon si loxo loxoy buur bàyyi nañ ko tey tey foo sànni mag mu takk fële ci buntu këram askan bu takku ndaw yi am di jam kujje politique dañ leen foofu teewal foofu pour gunge ko fële ci këram. li jëm si mbirum xibaar xam ngeen ni tey ñu màggal journée internationale dem na ko si mbirum jigéen ñi. tey li ñu doon waxtaan tey mooy mbirum Covid mooy euh, feebar mooy euh, coronavirus lépp euh, li jigéen doon waxtaan tey mooy mbirum jàmm jigéen dafa nekk loo xam ne ñu ko war a jox dem teral ko mooy bés bi nga xam nag moom lañuy ñuy màggal journée internationale des femmes jëm si mbirum politique xam ngeen ni sagar yi xeeñ ba léegi alarba ba léegi ba tey am na benn xale bu ndaw bu ñu boom fële ci Parcelles Assainies ñu ay takkadeer ñoo ko boom tey boo xoolee juróom-benn doomu aadama yoo xam ni ñoo nekk ñoo ñàkk seen bakkan si euh, manifestation politique yooyu xam nag mooy euh, euh, njiitu réew mi président Macky Sall war na waxtaan ak askanam ngir indiwaat jàmm ak dal fi ci doonu réew mi. bitim réew lañ koy tëjee fële ca Côte d'Ivoire dem nañu sànni seen i xob jëmale élection mooy ndaw ndawum réew mi xam mooy majorité présidentielle ñoom ñoo gàddu élection yooyu. Euh, kujje politique nag ñoom am nañ fi dafa nemmeeku nag ay mboxum si yenn bureau de vote yi euh, Niger lañ koy tëjee xam mooy euh, benn taskatu xibaar bu mag ñuy wax correspondant bu RFI ginnaaw bu ñu yàqee tojee këram ubbi nañu benn enquête xam ñan moo ñan ñoo def ñaawte fi fële ca Niger mbokk yi ñu leen di gërëm leen sant yenn xibaar bu ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.